serigne Cheikh aw ballo Mbacke ñom ak suñu baye serigne Modou Makhtar ñu bokk ben way ci bugu Mbacke aw ma sen fay ci biir ak ci biti la xuma la dara waye sat bii rek dara dund dara dako ang leen di ñaanal ci sen parti way jur bu baax yalla ngeen fi yàgg lool te wer ci barke Serigne Touba yalla na wéy yalla na sax ci doon doom ci deg ndigal doom ju mën a jox cër ay way juróom ay yàlla naa sax ci doon ci seenu taalibe ci sama nuyoo sama diggante ak yéen moo sama kilifa ñun ñëpp njabootu sëñ Modou Maxtaar di sëriñ Xalil Rahman Mbàkke fii la yenn ko dab mu yeewi ko waaye mës sa wuute cérémonie yu baax yi teewal nañ ko fi sëriñ sëriñ jiili du xaatu sama sëriñ itam mu ngi ci jotaay bi ndax loolu je l'ai toujours dit et je le répète haut et nit mënta am ñaari sëriñ mënu ci am ñett moo jigéen juy sa yam mënuñoo am ñaari borom sëriñ Mouhamed mbàcce Makhtar mooy sama buntu ci sëriñ Touba moom laay jébbal sama bopp àdduna ak àllaaxira ci ndigalu sëriñ bi itam laa ko defee woon ndax sëriñ bee ma joxoon diggal ci dundam na ma si ma ginnaaw na nga ko jébbal sama bi fi sëñ bi bàyyi ko itam xaaruma bañ def sëñ bi ci biir suuf may doo ko jëfe ndigal loo biñ waajalee sëriñ bi ba di koy bëgg a yóbbu ci këru àjjanaam laa ko fekk ci biti maa jàpp ci loxoom indi ko ndax li doon saytu sëriñ bi samay kilifa sama loxo lañ ko tegoon man moom sëriñ bi yàlla mu seereen ma ne ko moo ko digaloon ci bàyyi bañ def ko ci biir suuf ma lay doo ko jox sama bopp loolu nag du ma ci dañ bu mukk bu doon dese benn taalibi ci kaw suuf man lay doon xooluma loo am xooluma loo amul xooluma loo mën xooluma mënul xooluma loo mel bu ma la gisul suba mbàkke bàlle ci mbedd bi ngay naan sàngara nga jéggal ma ci wax ji di tërëf keroog laa lay gën a yàgg billaahi wal kitaab bu loolu jàllee maa ngi gërëm njabootu Mame Saliou Fall gépp ay cant gi am ngërëm ma di ko jaarale ci sama wayjur wi ndax lu nekk dafa am bunt amul sabab muy sama baay Badara Baro sama wayjur la ci ñaari boor sama baay la ndax diggante maam Saliou Fall ak borom Daaru Muxti sama nijaay la ndax diggante soxna Jëgg Fall ak Xarjatu Fall yéen te mu mate ko sëkk taxawuma man damay faral di wax ne léeg-léeg lu tax lii waral bu ma nit joxee lu joxu jox bu tuuti tuuti bu rëy ci man damaa tàmmul ñu di ma jox sama nijaay Badara Baro fait partie des rares personnes au monde au monde waaye yoo xamante nii mës na maa am yéene def dara ci wàllu professionnalisme ñëw wax ko ko mu ne ma lu koy def ma ne ko nàngam mu yëkkati ko teg sama te loolu nit mësu ko xam maa ngi koy seereel jàpp googu ak taxawu googu maa ngi koy seereel Serigne ndax dëgg na naam ne jarbaat geeg doom gi am na waaye wóor na ma ne lu bari boo ko defee Serigne Touba li nga xool ci mën a tax cant googu nag moo wéy jàll ba ci njabootu maam Saliou Fall gépp parrain bi li tax ma def ko du ko wax waaye ku am xel tey xalaat boo xoolee Thierno Birahim ni meloon ci sëñ Touba boo xoolee maam Saliou Fall xam ne noonu la meloon ci maam Cheikh mbir yu bari méngoo ba bis bii di ñëw su Chaabaan sax ñu bokk lu Cheikh Mamadou Fadal joxe ndigal li Daarul Moxti joxe ko Daaru Xafo kon nag am na ci loo xamante ne nii jartu xuus waaye sant mënta weesu sant bu loolu jàllee firnde li mooy màggal gii ren am na ci waañ boo xamante nii ki ko jiite catholique la gi ren. Mhm, dëgg la. am na ci waañ boo xamante ni ki ko jiite catholique waañ yi ci màggal gi ren je pense que c'est jàpp xaw ma ñaatal. mais li wérte woon mooy deux yëpp ay murit jiite woon. yii ay xaadar yii ay tiijaan la yii ay ñaseen la ainsi loolu nag li koy indi mooy mën a ràññale ba fexe ba jaxasoo ñëpp. man nii ma amee vie spirituelle muy vie bi nga xamante ne nag moom laa teg au-dessus de tout lu ma ko jëndee dara. Sëriñ Touba laa teg sama kaw ci lépp lépp lu ma nar a cofal sama digganteeg Sëriñ Touba wala mu yëngoon ko ma teg ko ci suuf waaye ni ma ko amee noonu laa amee une vie professionnelle te loolu moo ñu permettre ñu mën a am ay revenu di ci def yi ñu ciy def yoo xamante ne ni jar junj doyna borom xam ne ko ay joxoo ko reer te foo romb gis kanamam di rafet yow sa boss di gën di ñaaw boko ko bu la nee da koy dara da nax sa di DG Pam Modou Fall fi biran ñew na fi une forte délégation maa ngi koy sant di ko gërëm ci jëf ji daaw yónnee na fi nekkata la ma wax on l'a mal pris alors que c'était pas mon intention ñun yabal bi ñu ñëwee dañ maa jox enveloppe donc DG Pape Modou Fall moo la may leen santal leen ma ko gërëmal ma ko mais bu ngeen demee nee leen ko enveloppe bi taxul ma ko yëgal sama bis

man ku ma woo ñaari yoon ñetti yoon wuyu woo ma rappelé woo ma ma message la tontu woo ma supprimer sa numéro. boo bëgg toog ak man dama bëgg wax ak yow dama la ko yombal. dama ko woo di ko yëgal sama bis à plusieurs reprises deux trois fois jotuma ma message ko tontu wu ma bis jot mu yónnee fi enveloppe mu bëgg moo xam ne enveloppe boobu taxul ma di ko yëgal loolu wax ko sant ko gërëm ko taxul ma di ko yëgal ak yëg waaye danoo nekk ci réew mu doy waar. nit ñi da ngay wax benn ñu yóbbu ko fukk. rawatina njaareem. je n'ai rien contre lui. wax ja lu ca dëng wala mu jubati ji maa ngi ko koy jéggalu di ko di ko di ko baalu xam. am bu nekk ak man. ndax tout le monde ma fréquente et je fréquente tout le monde. Mhm. ubbi leen sama buntu kër yaatal leen ku fi ñëw tey na mel ne fi nekkoon daaw daaw jéeg. kii gan la fi kii ku bees la kii gëmul sëñ bi kii day dóor man nangu naa ñu dóor moom. Ah, seen yoon ah, nekk. Ah, ndax man daa dama la ko doon proposé waaye am na ñoo xam ne ñoo ñëw di ko fi sàkku si waaye terewul mu taxaw ci taxawaay bu rafet ndax fii la nekkoon préfet bi mu fi nekkee préfet saa bu màggal gi musaani jot suivi bi mu ciy def kenn mësu koo gis ba tey mu nekk gouvernement di gërëm monsieur le préfet yaakaar naa bu mu juumul tey lañ mës a gis bi wala xëy na kon dañoo daje fenn dans deux reprises voilà maa ngi jéggalu kon ci fàtte bu njëkk euh, waaye dégg naa ab jëwam muy jëw bu rafet ci dëkk muy ku nangoo liggéey ku catégorique ci ay décision am tamit ku respecter administration monsieur le préfet taxawaay bi ci CDD bi comité d' organisation bi bi ñu gisee defal nañ ma compte rendu bi sant nañ la bu baax gërëm nañ la waaye maa ngi lay yóbbante yóbbante bi di ko yóbbante autorité yi fi daje yëpp gis ngeen mbooloo mi ci màggal li wër baas bi ak li ci biti moo ëpp li ci biir fuuf màggal gi ren on avait décidé cérémonie bi ñu defee ko stade bi malheureusement stade bi nekk en construction moo tax ñu defee ko fi daaw yónnee woon noonu ñu cent cinquante éléments génie bisu Sëñ Tuubaa amul tànk ci ginnaw ñu xam ren lay faw ci CDD bi on avait demandé 200 cent éléments génie benn rek jaaru te dégg naa ne instruction wàcc na ci commissaire police pour que ñu def loolu moo ko nag moom nag commissaire bii dëkk bii laa lay wax je parle au nom de tous les chefs religieux commissaire donc le problème de la jeunesse sénégalaise ce n'est pas un problème d'emploi c'est un problème de formation psychologique. état ngi góorgóorlu waaye dafa làmbul góom bi fa nàcce ñii danoo gaañu ci wóom ñuy faji loxo c'est le seul maa ngi tëjee samay kàddu nag ci sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ba waa cofeel gi am ci man ba def ma nii nu ma def yoon wa ma nekkoon ba am loolu yàlla bu ma ci gis sama bopp mu ci barke Sëriñ Tuuba yàlla bu seytaane xàcc suñu diggante mukk lenn daal laa leen di rassuré lu leen nit wax ni sëñ Mahfouza ko wax te déggu leen ko ci sama làmmiñ bi samay wax luñ leen wax ni sëñ Mahfouza ko def te tegu leen ci seen bët du sama jëf ñaanuma yàlla jëf lu dul lu baax ñaanuma yàlla wax lu dul lu baax képp koo xam ne ameel naa la àq maa ngi lay tuubal di li jëpp dugalu lillahi wa rasul képp koo xamante ni tooñ nga ma mbaa mës nga maa def dara lu metti metti billahi wal kitaabi jéggal naa barke Sëriñ Tuubaa ku ma tëkku ak ku ma terale yam ci man aw ma ci problème ndax ba yàlla di bind ragal sama jëm ji taxu kon mbokku taalibe nañ ànd dem ci nun buñ ko ragal dina dëgër dina metti pour un début mais après tout va passer barke Ahmadul Xadim man ak yéen ba faw te dina neex dina yàgg du metti dina xam barke sànq man bëgguma keneen ku dul yéen. barke Serigne Touba Mbacke wallaahi lazim wa rabbul kaaba ndax sama bëgg ci Serigne Touba ci yéen rek la mën a feeñ. te man bëgguma ku dul Serigne Touba. na ngeen ma ñaanal yàlla bu ma doon ku dul taalibib Serigne Touba bu ma doon ku dul taalibib Serigne Touba te yàlla na ànd man ak yéen làq ngërëmul Serigne Touba. fi dunya. Balcom. Balcom pour avoir une bonne communication Balcom, bienvenue chez vous